ñun ci matuwaay yi ñu jël daa mel na sax ñun ñoo jiitu waa dëkk bi ci waajtaay bi ndax ñun ci commission d'organisation bi ngir si Sëñ Fallou Mbacké bin gisee ne virus bi ñu ngi koy commencé tudd ci bitim réew ci siin te xam ne ñu bari ci ay nit dañuy jóge siin di ñëw Touba kon mën naa am virus bi ak Touba ci bu gaaw a gaaw te xam nga ne Touba tamit daa bari ay ay ay tubaab yu fi ñëw di di seet si ak visité ci waxtaan di laaj gëstu ngir xam lan moo li nga xam ne nii lan mooy li nga xam ne nii nañ def ba mën a mucc feebar bi nga xam ne nii mi ngi commencé law di ko waaj ba ñëw biir Sénégal ñu daa def ab liggéey bu am solo te mooy jokkoo jok jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi. di sous-préfet ak médecin chef bi ñu waxtaan ak ñoom ñu boole ñu ak waa service jeune ñu jël ay xalaat ci ñoom ak ay formation ci ñoom ngir membre yi ñu àndal ci liggéey bi ñu mën leen a defal formation boo xam ne nii dana mën a xam nu ñuy def ba moytu wopp ji nga xam ne nii mu ngi commencé law ci Sénégal ak ci biir Touba bi jógee foofu ginnaaw Poroxaan sëriñ bi def acte bu am solo ci état bi jàpp leen ci ab sama réer ñu xam ne kon nag ndegam kon xel yi amoon yëpp dàggu na wopp gi mu ngi Touba mu ngi biir Sénégal te jumaa ji mooy barab bi nga xam ne nii ñëpp nit ñi ku wàcc Touba rek fi nga jëm si tey ku wàcc léegi tamit yaa ngi jëm margo ba jëm Baxiya ñu commencé nag di wàcc aj bi ci njëkk jëlee mu bi ma ñaar ajuma aj bi ci njëkk nag ci leen commencé def daf gën a wane suñu bitt nag ci suñu formation ñu wut ay alcosel yoo xam ne dañ koo indi ci jumaa ji ci mboolem porte entrée yi nga xam ne nii moo wër jumaa ji xam ne képp koo xam ne yaa ngi jukki bi jumaa ji des ma ne des sama jox jox nga laal loo xam ne nii dana wàññi jàngoro bu nekkee ci yow dana ko néewal doole ba du mën kenn ba muy wàll kenn. aj mi ci weesoo tamit gën a gën a gën gën a law gën a ñu commencé ko gën a gëmaat gën ko wal bu law nit ñi gën ci am ay ay xalaat si mu tax tamit daal ñu ciy joxaat beneen digg dana mën ne ni jumaa ji dana jul ajuma te bëgg na tamit ñoom ñu bépp watuwaay boo xam ne ni war na ngir wàcc ko ñu def benn réunion bu urgent xool point yi nga xam ne nii moo gën a jaadu ñu laal ko ngir bu amee du law waaw ci la ñëwee nag daal di wut tolloog juróom-ñetti barigo yoo xam ne nii day def 200 litres te ko ci mboolem ak si jumaa ji xam ne jumaa ji foo duggee rek da nga laal ndoxum am eau de en cinquante litre litres cinquante litres cinquante litres cinquante litres yoo xamante ni ci alkosal la ci mboolem bunt yi ak ci biir jumaa ji ak ci bitti bi xam ne bu la ndox mi rëcc tamit ci réseau bi danga lay koo xam ne dana yor alkosal bu mën a infecté li ngay def ci loolu si mu taxaw bi ñëwee ak Cheikh Basirou wane exemple am solo te mooy ñu ñëw taxaw ci bunt bi daal di jël alkosal bi daal di laaj ci loxo ba su jot premier ministre. Cheikh Bass def ko moo leen ne ko lii du ñëpp ko def la fekk ñun loolu xamoon na ne Touba laaj na communication bu mat sëkk ndaxte dégg bi wute na moo tax ñu gëstu ndaw wax leen ay wax yu gàtt yu jub yu fasu xam na set la ak moytandiku ak wagaru ba képp du jumaañ ko ne jëfandikoo nga alkosel bi ba jëfandikoo ci ndox mi am eau de ni ko ndaw yi am yowal santé waxe te amul benn njëkkante wala benn xëccoo wala benn werante nit ñi sax dañ ciy àgg sax léegi gën ko law seen ñeeñ sax dañuy laaj ndax lii sa kër mën na faa nekk ñu commencé dina yokkal xam-xam boobu na ku ñibbi sa kër it ngaa jël eau def ko ci sa benn bidon boo xam ne day tëjee def ci robinet di laal wala ni ngir lan ku ñibbi sa kër man koo gën a lawal kese la jumaa yi des daal di ñëwaat ñu laaj fi ñu jaar ba am risu benn nii. mu commencé law la ci mboolem jumaa yi ak ci kër yi ak ñaari fan la man ñaari fan ndax suba li ñu yor la exto suba lay jeex ndaxte boo gisee ne julli bu ne danañ génne vingt de vingt deux butéel yi alcosel mooy wër jumaa ji danañ utiliser mille six cent litres ndox ak quarante ak quarante butéel yi eau de ci bitti jumaa ji te loolu julli juróom dong la nga doole tey mu jóg màggal gi ñu xaw ñu ko renforcer ndax bi ñu xëyee gëm na ne vingt neuf butéel te na ni jeex na ba ñu wax ñoo mën na am nan wutaat yeneen na defaat yeneen pexe pour génn alkosela wala ngir ko ci loolu nag ñu ngi lancé appel ci mbooleem koo xam ne nii man nga te yàlla tax nga ñëw jàppale ñu ci liggéey bi def nii jëndam alkosel wala eau de javel wala matériel yi ñu jëfandikoo ay gants ay masques loo ci indi rek noo fii gants yi mun fee doy ndaxte problème mooy am nañ gants mais bëriwul daal ndax aju ma ci aju ma ci la jeexoon waaw ñu ngi am am na ñu fi ñëw ñu def tàll ñu tàll yoo xam su ma nee mairie Touba jàppale nañu ci wàllu matériel waaw mais des na soxna maam Xarim Mbàkke na ak bu mu solo Moussa Cissé Lo soxna Mbe ñu ay ay nit soxna ak sëñ am na xumba ay nit ñëw nañ dalal ñu loxo ngir jàppale ñu ci wàllu digg waaye nag jumaa ji xam nga dafa xaw a rëy ñi fi ñëw bari loo fi indi ci alkosel mu boo bëggee di yàlla ni war a ni war a ni war a yow ni war ni waree day ndax 31 bi 31 31 porte la moor jumaa ji te fépp indi fi jaaree moo tax te doo xaw wàññi porte sax ngir lan mën a sakkanal alkosel bi ngir mu gën a mën a bari waaye ba léegi nii moom takkusaan gi toll nii président may woon nii léegi pour ñu xool lu def ba ji am benn carton bu 25 boo xam ne nii da nga fi ne ko takkusaan ji ndax jullit ak seen dafa xaw a jege tisbaar